nekk bu njëkk boo xam ne Sénégal daan na yëkkati li nga xam ne mooy coupe bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu xaar bi nag xaar bi yàggoon na lool la waaye nag niki démb mbooleem li nga xamante ne ay yaakaar yu tas la woon niki démb Sénégal na nañu koy kontaana maanaam biir réew mi yëpp niki démb na nañuy wane seen kontaante bu baax a baax ndax nag yaakaar dafa yàgg a tas yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na nag xel yëpp dem na ci Jules François Bocandé xel yëpp dem na ci Pape Bouba Diop xel yëpp dem na ci Mawade Wade xel yëpp dem na ci Youssou Ndiaye xel yëpp dem na ci caam douzième gaynde yéen gi di direct news nee na bu ñu waxante dëgg la Sénégal entre dans l'histoire yéen a kaay gi di 24 heures daan nay xëy di ñu xibaar naan bu njëkk boo xam ne Sénégal moo ngi koy jël ak Aliou Cissé entraîneur yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa njiitu mi di président Macky Sall nee na une victoire a kaay gi di grand place Sadio moom la ñu tabb mu nekk meilleur joueur ci Coupe d'Afrique bi réew mi ko di jee ko doon gént rek benn yoona mbir yaa ngi mel ni gént yéen a kaay gi nee na ni ki démb ci ndakaaru maanaam xumboon na lool lool lool askan yu wane nañu nag seen mbégte waaye nag ndakaaru ak ci biir réew mi yépp yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na nag xew li muy neex neex ñi nga xam ne ñooy waa Air Sénégal ñoo naroon a yàq xew yi su dee ko sax ba pare ndax na dafa am ñetti vol yoo xam xamante ni ñoo waroon a départ ndakaaru njaay kii wuti fi nga xam ne mooy Yaoundé ñaari nag ñoo mujju dem ak retard boo xam ne jéggi na dayo ndax nag ñi nga xam ne ñooy joueurs yi seeni a yóbbu nag waaye nag am na suñu bare bari ñoo xam ne mer nañu ba maara day taal yi dañoo daal di mujjee xundu yéen a kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ah ko lijjante danañu ko régler yéen a kaay gi ah bi metti woon na lool lool diggante Égypte ak Sénégal ah dañoo témboo ci biir match bi dem tiro bi te ba ñu demee tiro bi sénégalais yu bari nag maanaam seen yaakaar nag génne woon nañ ko ci coupe bi yéen a réew mi ko di xëy duñu xibaar naan ñu joueur meilleur gardien ba pare équipe xam ne moo gën a fair play yéen a gi ne na li xam ne nag jafe woon lool ba ñeen la ñu jàpp ne Sénégal moom adada du jël mukk li xam ne mooy coupe d'Afrique bi loolee nga xamante ni nag ñu bari xalaatoon nañ ko Aliou Cissé daan nay dindi xalaat boobee nag andi leen mbégteeg bànneex yéen a kaay gi ne na mooy entraîneur bi xam ne moo fi njëkk andi li xam ne mooy coupe d'Afrique bi Kalidou Koulibaly du Kalidou Koulibaly rek ndax génération 2002 journaliste yi ñoom ñëpp jooy ba sonn ni ki démb ku mu neex nag jooy yéen a kaay gi dee sarx yi di ñu xibaar naan ñu Sadio Mané ni ki démb match bu tar moo amoon digganteem ak Mohamed Salah waaye nag bi match bi jeexee Sadio maane daal ma ngay kekkeke di ree di jubilé Mohamed Salah moom jooy ba maara détaali yéen a kaay gi di li quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall xëy di kañ Sadio maane nee na Sadio est un seigneur du football Aliou mi nga xamante ni mooy entraîneur bu Sénégal nee na jël na coupe bi nag jagleel ko askanu Sénégal le peuple sénégalais Sadio Mané ne tarixa yi wax ne bis bi nga xam ne nag moo dàq gën a neex ci sama yëpp mooy bis bii yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien ak L'Observateur nee na enfin yéen a kaay gi di Record nee na tey férié la tey moo ko waaye en tout de Sall jamono ji Sénégal yi dañoo kontaan ba maara de taali bay jayeng-jayeng journal bi du L'Observateur ñu koy fekk fa Youssou Ndour moom tim nee dina maye nag li xam ne mooy ab concert gratuit yéen a di président Macky salla Comores fa la bëggoon a dem waaye nag wisit boobee daan na koy gàntal ngir nag ñëw fii ci réew mi xaar ñi nga xam ne nag ñooy gaynde yi ginnaaw digg bëccëg gi ngir nag ñu mën koo andil li nga xamante ni nag mooy trophée bi neema ko bi yéen a kaay gi ne na Sénégal mooy équipe bi gën a fair play bii di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar nan ñu en tout cas li am ba des sala équipe nationale bu Sénégal dugg nañu ci histoire wane nañu seen bopp niki démb nekk nañu ay gaynde andi fi coupe li nga xam ne askan wi yàgg nañu koo xaar na ñoo xam nañu ko ba bëgg a xaddi bi nag jeexalee mbir yi ak lu jëm ci union africaine yi turami di président Macky Sall daan nay jël service waaye nag nee li nga xamante ni moom lañ ko dénk muy union africaine ci benn waat fas yéene saa def nag ay jéego yoo xam ne dina ràññeeku lool lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jàmm ak wàllum sécurité ak xeex wàllum terrorisme ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum nag jubbanti waat Afrique rawatina lu soxal nag coronavirus bi nga xam ne moo fi jaar journal bi di réew mi quotidien moo xëy diñu ko xibaar société nationale d'électricité